waaye du lu bàyyi ko ci yàlla toogaat nag di xeexaat seen biir. top ci gannaaw yu di la mosal ngay ngay tapale ak ak ak ak dugg ci ay lixóor da dara waru lu ko lu may bëgg lo am donc li de war nañ ko xalat baxa bax 95% ci rew mu ñu fexé ba am fa benn baat mu ñu fa dogal dara te ñom ñoko tek seen bop nak ndax ñoo nangu te ànd ñak na ko ànd yépp nak lu ngir yalla nak kenn ku nekk da ngay wut sa dara jey bop loolu leer yalla yalla dubul l'islam yalla yalla taxawul l'islam islam de tumuranke na lool tay do ko tek rawati senegal politique bi président bi fi ne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 boo xam ne bii day day tax nga defee nit ñi dañ laa bañ fekk nit ñi bañ la la mais yoon wi nga jaar moo tegul ci yoon te am na ñoo xam ne ku jaarul ci yoon mënuñu ànd ak yow kon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 kaw suuf waaye bis dana ñëw ngeen dajeeg yàlla ba de ba kullu moo aati yawmal qiyaamati farda wallaay ku weddi loolu yow atum la saraa iru ku defee ne maanaam loolu du am nañ xaar yëf yaa ngi suñ kanam da nga ko ci kanam yàlla àttekat yi ñett lañ ñaar ñaa nga sawara kenn ki nekk ki nekk aljanna ki ki ki xamut day àtte dana dem sawara ki xam ba noppi di àtte aw fen dana dem sawara ki xam dëgg di àtte dëgg nag kooku mag ci yoon noo leen di waat ngeen dellu ci waat moom de bu ngeen doon ay malaaka yi moom de lu coono yi bari bari fii la ñuy toog rek seen dañ ne woon moom de duñ def aras fii la ñuy rek moom de boo demee aras ba ñëw itam boo dikkee boo waxee lu dëgg du weddi ko rek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 dañ ko jàpp cootaa ma ñëw di ko tinu waaye sànnar ma ba la ma wax sëñ bi daanaka aw saaga rek wàññeeku nag di ko ca dóor loolu du jom du gor nañ teg yi ci yoon docteur yii seen métier bi day métier moo xam ne mu noobal la nit koo xam dem ba mu mënut a jaamu yàlla nga delloo ko ci sagoom ba muy delluwaat ci jaamu yàlla lu mu amaat ci jaamu yàlla boobu yàlla dana la ko daa lay seen sa wàll rek jar na takk sa nit kenn fayutoon nag loolu jar na waaye ab daal fi dem feegaa ko ci kilifa ga ñi ngay dajal ci buntu maltraité dila def lo xamné ne manam da ngay muju mer ba boo sàgganee da ngay génn fan dem faatu benn yoon rek mu jeex dem na fi ci hôpital ya waji sédé borom bi xam nga lu ko wax dama sëñ bi da nga da nga da ngay waji da ngay waji sa day yor ta man ñaka lek tax jiw ko mu ne ma da ngay waji sa day yor jox bu weer jox ma rendez bu weer mané ko ah, yow ni yow ni bu yow ni bu ñëpp mën di man mën di fatu saa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 man de bu ma leen jàppale nguur gi fi nekk laay jàppale ginnaaw ñëpp bay wor te moo yore doole ji kon de moom laa jàpp ndax politiciens yi gis ngeen seen wor yi fi toll koo ci waxal ku ne la wax lu koo ci def laa neex rek man de ma ciy gëmati kenn da ngaa ñëw fii ba ko def lañ gis waaye kenn mënut ci wax lu ma gëm yow bëgg démb lañ la fal nga di maire amagoo fukki fan nga daal di rallier demaat ci parti pouvoir ba woowul woowu fen maanaam noo ko ñemee waxee mbooloo yi bakar bu toll doñu uhud te bo xolé ni journaliste yi ñu wax ni lo ci gëm lu nekk bala ngor motax waxi journaliste yi fi ne kep koy nett li ku nekk lee nga nekk à fentan réseaux sociaux yi bàyyi leen li ngeen def bu di waxe mo dem nga jël wax ci tag ko monté ko di mu la ko neexee di ko tassaré kat da ngeen xamné bakar du gënu góor yi da ngeen da ngeen da ngeen lu xam xamné yowal xiyam dana ñew ta dañu jëtte lepp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 da dëgëral yéen ñi koy seq yëpp mooy seen kilif mbaa comme ci doonu sa kilif itam sa kilifa nangul na ko kilif teefam bu ngeen delluwoon ci moom bu ngeen ci wóoree woon diine ji di gis yëpp li koy sottal mooy ñi delluwaat ci diine ngeen di gis boobaa kuy jiite da am jàmm waaye bu ngeen leen yaree ci jikko yu bon yii yéen ñiy jiite yéen a njëkk am problème. kon dellu si waat leen xam ne lii ngeen def baaxul président nag noo ngi lay wax ne réew mi métti na lool njëg nit ñi amatuñ lu ñu lekk njëg yi ba jéggi tayoo nit ñi amatuñ lu lekk te yaa ne ci bopp bi nag kon na leen